asalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy ñëw rek pour jox leen update maanaam ci xibaar yi nga xam ne moom moo dal Coromakhou Mandela voilà Coromakhou Mandela mu Walf ñu ngi leen di waxaat encore une fois jaay doole bi nga xam ne moom la ko suñu gouvernement bi def euh, ne Coromakhou Mandela di journaliste dañ ko toppoon ay weer ci ginnaaw pour faagaagal ko waaye comme dañoo ragaloon acharnement ci kaw journaliste yi ñu jéem wut benn porox ndol boo xam ne fa la ñu bëgg a jaar pour jàpp doomu jàmbur ji te mi ngi biir sept mois damay avertir sénégalais yi euh, fi may wax ak yéen nii elle est au loco de la police def na malaise daanu na yëgul boppam fi mu toll nii daanu na et elle dafa def malaise mi ngi police elle a perdu beaucoup de sang juróom-ñaari weer la ëmb dafa ëmb juróom-ñaari weer coro maxu Mandela journaliste fajri bu jigéen bi mi ngi ci loco police fi mu toll ni demb wo nañ ko enquêteur yi enquête ko amuñu dara luñ ko jappé ñu bay ko mu ñibi kërëm dégg na procureur yëkëti tension ci guddigi di bëgg cardiaque mu ne nañu xey ñu dem forcé jëli ko kërëm ak certificat médical bu ko docteur bindal parce que bu leen faté né jigéen bu wërul la jigeen bu wërul la bu toll ci juroom ñaari moy choro maxu Mandela mu wal fajir bañ ko jéemee japp booba ba légui alerté won na ñenti wër ci ginnaw journaliste wal fajiri yépp ñom joxé nañu alerte né dinañ leen japp joxé nañu alerte aussi né dinañu tejj wal fajiri joxé nañu alerte né dinañu japp pap dinañu jappat pap alaña joxé nañu alerte né dinañu japp dambot joxé nañu alerte né dinañu japp cheikh bara joxé nañu alerte né dinañu japp pap sané mu wal fajiri joxé nañu alerte né dinañu jàpp euh, katu wal fajiri gi kenen ki ni mu tuddu Euh, euh, le jeune en tout cas li am solo mooy coro maxu Mandela fi ñuy wax ak yéen ni ñoom ñu ngi jéem a woo ambulance police police mooy jéem a ambulance pour ñu ñëw jële ko ci loxo police lu ko dal neewu Macky Sall la ak Marème fay Sall ndax xam nañu ne ay lekkkatu nit lañu ay naa naafeq lañu yu mën a lekk nit rey ko lekk ko ba pare jaale ko ay mbokkam ku leen bàyyi nee nañu ñoom ñu ngi ra xaw ma lu ñuy um xëy na Sénégal la ñu bëgg a um ndax xam nañu ne ku ku jubul toppuloo yàlla gëmuloo yàlla yërëmuloo sa sa population kooku waruloo dem umra gis nañu Macky sàll façon dëgër xol bu ne def na ko nag façon rey nit bu ne def na ko ndax boom na fi ay gendarme ak ay police ak militaire te kenn dara fekku leen pour muy leer François Mancabou Didier Badji ak Fulbert Sambou ñetti doomu Casamance Mankaañ ak ñaari doomu Joola boom na leen fi dara fekk ko ci donc maki Sall pour mu rey nit ak mu naan ndox la yemale Coro Maxu Mandela mu wal fajri fi may wax ak yéen nii mi ngi ci loco police yi elle est en danger sa vie est en danger sa vie et en danger daanu na mi ngi nàcc daanu na dégg naa yëgul boppam fi mu toll nii ñu ngi ne dafa xam wala xamul jigéenu biir la bu toll ci sept mois ñu koy dangar dangare di ko yéegale escalier ko wàccee bañ koy jëli këram sax daanu na dafa daanu ñu jël ko ba léegi xajul woon seen oto dañu obligé jëkkëram mu dugal ko ci oto moom ñu yóbbu ko pour dem tëji ko Sénégal ban façon réew la ak certificat de ak certificat médical Sénégal ñun ci ban réew lañu ñu dëkk jigéenu Sénégal góoru Sénégal magu Sénégal ndawu Sénégal naka ngeen di toogee di seetaan benn samba boy muy jël dëkk bi en otage di faat bakkan yi di jàpp nit ñi di leen xoqotal di leen toroxal ñun fan la jëm fan la jëm yéen naka ngeen mën toogee ñuy seetaan lii du affaire politicien ak politicien léegi affaire dëmb la Macky sàll ak waa këram ay dëmb lañu Macky Sall woo Marème fay Sall woo yaayu Marème Faye Sall Oumou Diallo dëmb la naka ngeen mën a toogee ci am dëkk ngeen ne nit ñi ñu am jàmm ku am jàmm ngeen ne foog ngeen indil ko problème journaliste bu wax lu leen arrangé wul ngeen jël ko tëj ko Pape Ndiaye mi ngi nii ci biir kaso bi tëjoon ngeen fi Pape Alé tëj fi ñeneen ak ñeneen ba léegi yéen a ngi ci tappale boo xam ne yéen a koy nas mi ngi ñëwaat di yegg ci ñun yéen koy nas ay chef ay commissaire yéen ñépp Marème Faye Sall tabaxal na leen kër te dinaa ñëw dinaa ci yegg dinaa ko lim yéen ñëpp dinaa lim seen kër yi yéen ñëpp am ngeen kër ak extension Almadi les généraux les commissaires les commandants de police yéen ñëpp Macky Sall tabaxal na leen kër ngeen bëgg a jël bakkanu doomu jàmbur bi à tout prix à prix lekkoon ngeen fi doomu Ndeye Khady Ndiaye mu Sweet Beauté lekkoon ngeen fi doomam parce que ñaari doom la waroon am ngeen posone ko def lu am dara leen def ci meewu bridel dugal ko ci biir frigo mu naan ko ndaw si avorte mu am euh, euh, fausse couche pour benn doom bi benn doom bee dund donc lekk ngeen doom loolu yéen jombu leen kii dafa yor certificat médical xanaa yéen seen xol nu mu dëgër dëgër war ngeen am ay jabar am am yaay am ay doom te xam ne àdduna day dox rek waay ku nekk sa tour chacun à son tour chez le coiffeur billahi wallahi tallahi Macky Sall sa bis dina jot chez le coiffeur te ñun ñiy wax ni c'est les mêmes personnes qui viendront et vont rappeler aux Sénégalais ne lu waay def sa bopp loo def nii wallahi everything you doing billaahi wallaahi tallaahi lazim dina ñëwaat sa kaw day yàgg rek waaye billaahi wallaahi yàlla yàlla du juum yan ay nit ngeen yan ay mbaam ngeen yan nag mbaam golo lépp loo loolu sax yab golo yi la ak mbaam yi bu ma leen leen tekkalee ak yéen yéen ay dëmm ngeen pur et dur des sorciers yéen xanaa doo leen xalaat nit booy xeex sax da ngay xeex ak ko tollool doole Ousmane Sonko ngi toog këram di wax lu ko neex di def lu ko neex di doxante ci biir Sénégal le roi du Sénégal dem leen laal ko yéen xanaa doo leen góoru yàlla boo leen nekkee góoru yàlla arrêtez de vous acharner sur les gens barki démb dem ngeen fekk Bassirou Diomaye nit koo xam ne dafa sedd ba moom moo gën a sedd glace Bassirou Diomaye Faye moo gën a sedd glace du wax sax lu débordé waa ji boo ko jotoon du wax lu débordé sax dalay ne déet sëñ bi calmer leen rek def leen ndànk déet sëñ bi dem leen def leen ndànk dëmm yooyu ñoo ne ñoom dañoo dem makkatul mukarrama ànd ko ak seeni ay chanteur ak seeni tappalekat topp kaa ngeen bëgg kan moo gën a grave Adamo Adamo mi nekk Italie Adamo mi nekk Allemagne ngeen koy jox xaalis muy génn di saaga nit ñi Adamo lan la deful ci topp kaa ci lu bon ay wane ay awra ay wane lii ay vidéo ay yaayu jàmbur ay nangam ay sëru jàmbur tey boobu Adamo Macky Sall la fi nekkal Kalifone Sall lan la fi waxul Kalifone Sall lu mu fi waxul tey moom mooy bras droit wu Macky Sall ànd ak moom saaga katu Macky Sall yi saaga bu bon bu ne xam ngeen ko bañ ngeen ko xaaya ministre de la jeunesse bu tudde boppam Anita Pape Malick Ndour ban ñaaw làmmiñ la ñaawul làmmiñ ah ngeen ànd fi ndaw soosu sant kan mi ngi lambar lambare noonu ci senegal di tëdd ay procureur ak lu ne yéen ngeen defe na yéen a moom réew mi yéen ngeen defe na yéen a moom sénégalais yi réew mi yéen ngeen defe ne yéen a ko moom Macky Sall tu te trompes lourdement billaay wallaay tallaay lazim bu fekkee yow gisuloo sa daanu ba léegi ñi la wër waxuñu la ko Macky Sall bébé bébé bu juddu démb sax bu demoon ak yow élection dana la gañe yow Ousmane Sonko nekkatul njàmbaram pour mu gañe la élection yow ak Ousmane ko bokkatu leen camp bi ngeen di boxe dafay mel ni nga ne Angleterre ak pomme de terre bokkatu leen camp bi ngeen di boxe Adama Gaye journaliste fi mu toll ni réfugié la Gen réew mi ngeen génne ko Sénégal tëj ko kaso un journaliste qui écrivait ngeen tëj ko kaso ñaata at ñaata weer yéen xanaa ay dëmm ngeen léegi lan ngeen xewal jàpp doomu paspor, yi nangu seeni passeport dugal ci biir tiroiru Macky Sall après ngeen def lan ngeen def ñépp sous contrôle judiciaire ne réew mi kenn du wax ndax Macky Sall mu bëgg mandat ya Allah yaa allah yaa karim yaa rahmaanu yaa rahim Macky man maa ngi bitim réew mën a loo ma dara xoolal yàlla li muy def bu fekkee sama frère yeeg sœur yooyu danga leen noppiloo man maa ngi fii dinaa la yàq lu mel ni xeme te dinaa génnee dëgg yi yépp te doo ci man dara te mi ngi metti sa xol dinaa dërëj sa xol bi di dërëj sa xol bi di dërëj sa xol bi doo ci man dara xoolal yàlla rek te pourtant chaque jour que Dieu fait yéen may xool manu leen ci dara yaag say tappalekat yaag ñi ngay yónni yaag ñi ngay yónni pour ñu yàq ay nit yaag li ngay pexe sa pexe bu bon yépp rate na ku ñëw ci man enregistré naa la enregistré sa ndey enregistré sa baay topp la ci say hôtel filmé la ak ay jigéen boo dee góor ma topp la filmé la boo dee jigéen bu nekk Sénégal ma am say filmu porno seeni affaire mi ngi sama loxo maa ngi leen di xaar yan ay nit yu bon ngeen àlla bon ni moom doo leen ay gor doo leen ay jullit kenn xamul lan ngeen dëmm yi sax dinañ ma mere bu ma leen déggee ngeen di leen tam dëmm coromaxu Mandela mi ngi nàcc mi ngi au locaux de la police mi ngi locaux police sûreté urbaine xam ngeen kan moo koy baara Bara Sankaré Marème Faye Sall jëndal na ko kër ba livré ko ko ba tabaxal ko ko général Moussa Fall général euh, commandant Yad pa Yat parewuma ak yéen de seen kër yi Almadi extension yépp xam nañ ko premier dame buy joxe xaalis ñu tabax ay kër clé en main di ko jox ay ay ay samba ay gouverneur ay ay gendarme ay ay ay chef de gendarme ay commandant ay commandant bip xam nañu ne feeñ ngeen té lepp dinañ ko génne teg ko sur la table sénégalais yi xam ko ndax yeen ñi ay dëmm ngeen gaay ñu ngi suivre actualité bi lepp lu dal maxu Mandela Macky Sall ak nitami la lepp lu dal maxu Mandela c'est Macky Sall et sa famille lepp lu dal doomu jamur bobu c'est Macky Sall et sa famille jaral na jël ay bakkan jaral na ray rey jigéenu bu bir ba sept mois kooku naka nga koy jëlee di ko watat di ko dugal ci ay kaso xam na seen loxo nag yàlla billaahi boo leen jëlee bakkanu doomu jàmbur bii di ngeen xam ne lépp dëgg la waa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu